national liggéeykatu assurance yi nekk ci Sénégal ñu ngi laaj ñu soppi leen anam yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee yooyu les cadres doon jënoog taskatu xibaar yi ngir fësal jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel. lu war a jege fanweeri entreprise d'assurance ñu ngi présenté ñu base yi yokk ko yokk indemnité de logement yokk indemnité de fonction yokk indemnité de restauration ba ci prise en charge médicale yi ñu saytuwaat ko xoolaat ko. ngir ñu gën leen a bàyyi xel nag liggéeykat yooyu amaloon nañu benn convention bu ñu déposé woon ci ministère du travail waaye boobu ba léegi xaatima ko ñoom nag ñu jàpp ni seen patronat moo nekk ci ginnaaw boobu le blocage. biñ ko waxtaanee ak bi ba léegi nag patronat bi waroon signé ñëw rek signé ndax defe naa signé convention boobu njëriñu travailleurs yi la waaye it njëriñu employeurs yi la parce que employeurs yi dañuy am ay revenus dañuy am salaire. mu defe woon ne bu desul lu dul signature kenn du ko yéexal kenn du ko tardel waaye boobook léegi mu ngi bugg a tardé ndax ñu ngi bugg a toog ñeent ba juróom ñett ñeenti weer yoo xamante ne tey jii ñu ngi xaar signature boobu. ci jamono boo xam ni liggéeykatu assurance yi ñu ngi laaj ñu soppi leen anam bi ñuy liggéeyee ñi nga xam ne ñooy bindu ci assurance yi ñu ngi ñaawlu yéex gi ñu nemmeeku ci payoru seen ndàmpaay saa suñu amee accident. ba ma dala dawal oto ak léegi parce que ay vingt cinq ans yooyu waaye gisuma ci sama bopp benn yoon laa ci def soog oto moo daw ba mbëkk ma yàq sama oto ma jël huissier constaté ko bi ma ko constaté ak léegi def na un an ak quatre mois ba tey jii su ma demee si assurance bi may daggee daf naan ma maa ngi si. cadre yi nekk ci assurance bi ñu ngi yëgle benn préavis de grève ñoom nag ñu ngi artu ne dinañ gàllankoor secteur bi bu fekkee ni seen situation bi amul coppite.